أهازني الباقي من السيطان حين رماني أبد الأوتان mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ak fu ñu mën a nekk di ñëw tey ci benn tom bu am solo boo xam ne ci liñ war di faral di waxtaane la te mooy chahru euh, al hijri bi nga xam ne mooy weer bi nga xam ne mooy weeru euh, jullit yi nga xam ne mooy seenum at ñoom seen jëm bopp di loo xam ne it xëy na jullit yi dafa mel ni dañ koo sàggane woon lu yàgg-yàgg lu ko waraloon nag mooy jamono yooyu tubaab yi ñoo fi newoon fexe ba fàttaloo leen seen taarix fàttaloo leen seen lépp loo xam ne dafa jëm ci diine euh, ba fab loo leen moom taarixu boppam muy al milaadi euh, muy sanal milaadi yi nga xam ne sanal samsi mu ngi mi ngi dépendre ci jant bi waaye nag bii moom mi ngi dépendre ci weer wi loolu nag jullit yi am nañ jamono yu yàgg yàgg yàgg yoo xam ne dootuñu taarixal sax ci achahrul hijri milaad yi rek mille neuf cent nangam moom la ñuy wax euh, xam ngeen ne yonent bi nekk na fi sallallahu alayhi wa sallam ba jógee fi ba ci jamono sidina Abubakar ba ci jamono yi sidina Omar <coughs> radiyallahu anhu amaguñ taarix benn taarix xëy na danañ taarixal ca ba yonent bi ñëwee Médine waaye nag doon tun taarix boo xam ne dafa sax ba jullit yëpp di ko jëfandikoo ku ñuy wax Abu Moussa Ashari nga xam ne moo doonoon gouverneur u Sidna Omar ca dëkk bi ñuy wax Basra ca Irak kooku moo am benn bis mu bind lettre Sidna Omar ne ko yow de euh, lettres yi nga xam ne ñun danga nga koy bind saa su yaa ngi koy bind ñun it rapport yi nga xam ne ñoo ñuy bind di la ko jox du am dat du am benn date léeg-léeg da ngay gis koo xam ne day bind Chaabaan waaye bu bindee Chaabaan wala mu bind leneen du mën a wax Chaabaan ci at sàngam ndax day mën day abbi ati jàmbur waaye amuñu nun jullit yi at yoo xam ne ci la ñuy askane li li ñuy wax sidna Omar nag bi ko lettre boobu dikkalee ak wax boobu mu daal di dajale saxaaba yi ba ñu daje mu ne leen damaa bëgg ñu di diisoo ci nu ñuy def ba nga xam ne danañu am taarix boo xam ne lu ñuy bindati ci ci taarix boobu lañ koy bind ñaareel ba it lu jëm ci wàllu jëflante gi jullit yi di jëflante ci taarix yooyu lañ koy bind ndax taarix mënut a ñàkk bu amul rek Euh, lu bari day réer bi saxaaba yi dajee xalaat yi jóg ñu wuute ñii ne nañu jël taarix bi nga xam ne moom la perse yi waa Faris nañ jël boobu rek jëfandikoo ko ndax ñoom ni ñu ni ñu ko daan defee ñoom mooy bu bu seen buur yi ku faatu rek keneen ka ca topp loole foofu la ñuy jëlee taarix noonu lañu daan taarix yi ñoom persi waaye loolu ànduñ ci ñeneen ñi dañ jël taarix ruumu ruum ñoom itam ñu bari ci saxaaba yi ànduñ ci ñeneen ñi ne nañ jël weeru koor ndax gannaaw ci la yàlla war ci alxuraan ñu jël weer woowu moom di ci taarix loolu it taxut ñu ànd ci ñu nañ jël Euh, mawlidun nabi maanaam bis bi mu dikkee ci àdduna di ci taarix ba tey euh, ñëpp ànduñ ci am ñu wax ne nañ jël bis bi nga xam ne ci la jibril njëkk wàcc ci moom yooyu yëpp wax nañ ko ci seen biir waaye <laughs> taxut ñëpp ànd si biñ demee nag ba ci mujj gi la sidna Abubakar ak sidna Omar ak sidna Ousmane ñu ngi woon ci jotaay ba ñoom ñoo dëppoo ci ne nañ tànn weeru muharram nañ tànn weeru muharram lu tax ñu tànn ko weeru muharram mooy weer bi nga xam ne bu ñu ajee màkka ba nopp moo ci topp sul qiadati sul xijja muharram moo ci topp mooy weer bi nga xam ne itam dafa bokk ci al ashhurul xurum ñeenti weer yi nga xam ne weer yu ormal lañ yoo xam ne kenn du ci tuur deret kenn du ci tooñ kenn du ci def dara loo xam ne naqari na yàlla dañ ko ci dañ ko ciy bañ ñu ne kon Omar daal ne kon tànn nañu euh, muharram booba booba lañ tànn muharram ci ci at ci ci mu nga xam ne mooy mooy tàmbali weeru jullit yi ci lañ koy tàmbalee muharram safar rabiul awal ila axiri nga xam ne zul xijja mooy doon weer bu mujj bi muharram mooy bu njëkk bi waaye zul xijja mooy doon weer bu mujj bi ci atum jullit yi loolu moom lañ tànn euh, euh, tàmbalee ci weeru jullit yi mu nekk nag lu am solo loo xam ne euh, am solo gi am solo sax jullit yi des dañu xam ko Euh, li tax ñu tànn gàddaay gi ndax gàddaay gi moom ci boppam ci la lislaam amee li ñuy tuddee nation al umma al islaamiya umma bu ñu naan umma al islaamiya gàddaay gee tax ndax bu yonent bi gàddaay yi doon du am ab dëkk boo xamante ne day doon dëkkub lislaam xeetu lislaam nekk fa lislaam di ko atte bu nekkoon Makka kon du fa am loolu waaye Medine la amee dëkk Euh, euh, l'islam maanaam daarul islam foofu la tàmbalee daarul ilmi wa diine noonu ko sëñ bi di waxee nga xam ne fa la diine taxawee fa la lépp taxawee fa la xeetu lislaam itam tàmbalee am ndax umma day fekk nga am mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn benn benn benn diine bokk benn xalaat bokk nangam ñu loolu ko tuddee nation bu amul loolu euh, bañ nekkee Makka ay jullit lañ rek waaye du aw xeet waaye bi ñëwee Medina nag tàmbali nañoo former aw xeet former ab gouvernement yonent bi jiite ko sallallahu wa sallam ay jurit di ko doxal di ko doxale ci sharia kon loolu foofu la dawla islamiya tàmbalee ci lislaam nguurug lislaam ñu ne nag kon foofu yi nga xam ne ci la nguurug lislaam tàmbalee ci lislaam di muharram eh, di di di di hijra kon ñun ci la ñuy tàmbalee suñu suñu at ndax ci des yëpp Euh, dëppoowuñ ci maanaam boo boo waxee mawlidu nabi ñii nee nañ nangami fan la woon ci weer wa ñii naan nangami fan la woon ci weer weerante am du sotti nga wax yeneen yi ci des yëpp daanaka d'accorduñ ci amu ci bi lenn loo xaye xam nañ ne lii moom la ñii wax nañ lii ñii wax lii hijra bi nag ñëpp xam nañ ne du du caageen muharram la woon déedéet muharram sës gi mu sës ci Euh, aj makka gannaaw bu mu noppee te aj makka ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee woon na ci la diine ji matee al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina kon loolu moo tax ñu tànn ko léegi nag muharram daal di tàmbali léegi nekk loo xam ne bu weer wi feeñee rek ci guddi gi rek at mi commencé atum muharram euh, daal di nañ commencé weeru julit daal di nañ commencé léegi itam loolu itam bi nga xamante ne am na fekk na euh, jullit yi e ñu bare bare bari amuñu woon daanaka mënoon nañu ne dootuñu am archive li ñuy wax archive bu fekkoon ne date bi amatut archive dootu am ndax lenn lu ñuy xam kañ la mënatul am loolu nag kon di lu am solo ci jullit yi di lu am solo ci loo xam ne jullit yi dañ koo war a xam di ci date ndax it ñun sunu jaamu yàlla li ci ëpp lépp ci weeri jullit yi lañ koy lañ koy date tey jii Ramadan mënuñ koo seet ci beneen weer wu dul hijri ci weeru hijri euh, lu mel ni aj makka asurul xaj sahrul ci aj su ko seet ci lu dul weer yi nga xam ne mooy weeri weer weeru weeru li nga xam ne mooy lu mel ni sawaal juróom benni sawaal fan juróom benni fan sawaal gannaaw buñ buñ wooree ba noppi loolu mënoo ko seet ci beneen weer ci weeru jullit bi képp nga ko mën a seet gis ko kazu rajab mënoo koo seet ci weneen weer loolu ci weeru jullit mënoo dema dema dem ba ci weeru tubaab yi nga dem di ko ci jéem a lijjanti boo ko ci lijjanti du sotti ndax weeru tubaab yi fi ñu toll nii maanaam dañ koo dem ba tàmm ko waaye ñoom biñ ko defee ba noppi amul fenn fu wóor a wóor fuñ ko teg fi mu ne nii ak li muy siiw lépp amul fuñ ko teg maanaam li ñuy wax Euh, euh, wax mi maanaam li ñuy def lépp ay xalaat la yoo xam ne ay njort la waaye nii ñu amee ñun weer woo xam ne dañuy xam ne weer wii biig la feeñ gis nañu ko ñoom amuñ loolu. ay programme delluwaay. amul delluwaay ah, la yu ñu tëral seen bopp ba dëppoo ci ñoom rek waaye amul delluwaay ñoom sax dem nañ ba ci jamono yu mujj yii fi ñu toll nii demoon ba bëgg koo changé ñoom. ñoom ñoom chrétiens yi ci seen bopp dem nañ ba egg ci jamono yoo xam ne lii may wax ni ñoom ñu ngi may déglu xam nañ ko maanaam demoon nañ ba bëgg koo soppi waaye bi ñu demee bëgg koo soppi dañu ne ah li nga xam ne kat ñun xas nañ ko tàmm ñëpp ba adduna sépp dëppoo ci léegi di ko def bis buñ ci dugalee ay soppi day indi ay mbir day yàq mën mën nanoo yàq yàqal lu bari ñu ne moom dëgg la xam nañ ne ay njuum teg si waaye nañ ko bay noonu mu jàll waaye nag fexe nañ ba not ci ay jullit yu bari ba nga xamante ne ñoom ci seen bopp dañ koy ci la ñuy datee seen lépp seen liggéey lépp ci lañ koy datee kon loolu ndegam ñoom ñoo demoon ba bëgg a soppi ngir xam ne amuñu fuñ ko wéer te ñun li ñuy def ñun am nañ fuñ ko wéer fu wéer a wéer a wéer mm-hmm. inna iddata shuhur inda allah isna asara shahran fi kitabillah mm-hmm. yàlla moo waxoon ne euh, at mi fukki weer ak ñaar la mm-hmm. ñun weer mënut a weesu fan weer ñun ci lislaam weer mënut a weesu fanweer de ñaar fukk ak euh, juróom-ñeent wala ñaar fukk ak juróom-ñett euh, léeg-léeg fanweer ñoom dana dem ba fanweer ak benn loolu amul ci lislaam ah moom moo tax ñu war koo xam lu ndax fii ne nii buñ ko xamluwul Euh, datu datu weeru jullit yi yi nga xam ne dañ ko cee date ci ay jaamu yàlla yoo xam ne nit ki da ko cee war a def dañu ni saba yi yëpp dañuy dem ba nit ñi dootuñu ko xam weeru tubaab yi la xam te la weeru tubaab yi cee date lenn loo xam ne dafa jëm ci jaamu yàlla ñun ci suñu lislaam mu mëneesu ko ak lu nit ki farlu farlu mënu ko def kon loolu itam tax na ba war nañ koo gën a bàyyi xel ndax am na réewu lislaam yu bari fu mel nii Iran ñoom ba fii may waxee yow seen xel xalaatu date ci lu dul al hijri ñoom duñ ci hijri rek la ñuy maa ngi fàttaliku yoon woo xam ne man dem naa Iran ànd ak sëñ Mourtala bi ñuy dem nga xam ne ni ñu ni yi noté nii rek may wax naan mille neuf cent nangam lu ma wax rek tudd mille mille neuf cent du ma tudd hijri bi bii fi nekk tey nga xam ne moo yilif ñëpp moom ci boppam bi ma noppee daf na ma waxtaan bi nga def de neex na am na solo lool lenn rek moom moom laa ci seetlu mooy yéen tubaab yi not nañ leen not nañ leen ba yéen du ngeen date sax ci euh, datu weeru jullit yi seen date ñoom ngeen di ngeen di jël loolu rek laa seetlu ci li nga def waaw waaw xoolal de nga xam ne daf ko daf ko seetlu bu baax dama lii day wane ne tubaab yaa ngi leen di not ba léegi. taxawaay bi ci kilifa diine yi war a am mooy mboolem lépp lu ñuy def lépp lu ñuy def ci wàllu diine ñu di ko daté ci dat bi nga xam ne mooy alhijri lettre yi ñuy def ak seen papier en tête seen papier en tête ñu di ko daté ci weeru alhijri ndaxte weer bi dañoo dem ba tàmm ko rek julli yëpp tàmm ko wu bi waaye bi it bu fekkente ne kilifa diine yi ñoom seen bopp màggal yi ñuy def bis yi ñuy def li ñuy woote lu mën doon danañu indi achahrul hijri ba nit ñi xam bu yàggee tuuti nit ñi danañ ko xool danañ ko xam waaye bu fekkente ni sahrul milaad yi rek lañu lañu lañ koy def nit ñi duñ ko xam. sëñ Tuubaa mosut jëfandikoo lu sahrul hijri mboolem euh, euh, li muy tudd ci wàllu weer du ca tudd weer wu jëm ci weeru tubaab yi mukk ci àdduna xelam xalaatu ko du ko def loolu nag. loolu itam ñun dañ ko cee war a roy te loolu itam ñi ci war a jiitu mooy kilifa yi kilifa yi ci seen jëm bopp bu ñu ko doon def rek nit ñi daal koy xam fi te nit ñaa ngi ciy góorgóorlu sax léegi ñu ngi koy xam ñu koy xam bu baax baax. da nga gisee initiative a a ràññee lu am solo la xalaat la boo xamante ne moom rek moo mën a fexe ba jàngalaat ko jullit yi ñu xam ko mm-hmm. ndax média bi rek ñoo mën walbatikuwaat fexe ba li nga xam ne jullit yi dañoo demoon ba defee ne sax ñoom waratuñ koo xam am na jullit yoo xam ne boo leen di wax hijri xamuñu sax luy hijri waaw hijir bi rek la wax léeg sax nga dégg ñu ne la hijir nangam nangam yooyu yëpp dañu ko wax waaye nag duñ ko jëfandikoo waaye buñ fexe woon ba di ko jëfandikoo maa ngi fàttaliku jamono yi fii sëñ Fallou bi mu fi nekkee dafa amoon jamono yoo xam ne lettres yi muy bind état bi olof la koy bind olof lañ koy bind suñ ko amoon jamono yoo xam ne daf ne ah man liñ may bind xawma ko man itam li ma naay bind li ma xam nga xam ne bàyyi si njaay moom la fi nekkoon nga xam ne mooy bind lettres yi lépp même gouvernement bi lettres intervention yeeg yi bind ci gouvernement bi yëpp kenn bindatu ko woon tubaab olof lañ ko doon def waaye dañ koy daté ci hijri ñi ma wax rek mooy nañ fexe ba ba kuy kuy bind lettre kuy daté lépp loo xam ne dafa jëm ci biirum diine wàllu sa walo àdduna sax ndax bor yi bor bor yi nga xamante ne dañ koy lebante fi toll nii maanaam nga xam ne bor bu ne dafa war a am date biñ la ko lebalee ak dat bi nga koy fay loolu fi mu nii boo ko boo ko deful ci milaad yi ko war a def ci milaad yi iza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman yàlla moo ko wax faktubu faktubu wal yaktub baynakum katibun bil adl gannaaw bor bi ci boppam des ko war a bind yàlla na nag ne ku maandu na ko bind loolu ñuy bind buñ ko noppee ji dañ koy war a date ci at taarix al hijri